naqarlu fi naqarlu yam ak diko metted li manam natu yi nga xamne ferme sediment bi nek suñu wetu cité mu ñu koy teg boo leen bi gene di dugg ci ñi ñi dox ci sen tank ñew wala ñi dox ci sen auto di ngeen setlu ko ne tali bi mu ngi yaq bu baaxa baax te loolu len waralu ko ludul euh, camion gros porteur yi nga xamne sediment mu ngi koy jaarale si si suñu tali parce que dañu bàyyi seen buntu bi nga xam ne moo nekkoon seen bunt bu jàkkaarloog tali bi mooy yoonu Sangalkam bi dañ ko tëj ubbi suñu euh, cité benn bunt boo xam ne amul diisoo dañoo jékki-jékki rek gis bunt bi ubbeeku depuis boobu ñu ngi jéem a négocier ak moom pour trouver des solutions à l'amiable mais on voit que dafa am benn euh, manque manque de volonté manifeste de leur part te léegi nag dañ ne jot na pour ñu jóg ci parce que fii dañ fi investir suñu xaalis des dizaines de millions vous voyez kër yi macha allah ni ñu taaroo léegi nag pour ses intérêts économiques et financiers de cité donc cité bi tali ngi ba parce que ku dafa am xet surtout période de la période nawet pour nga dund ci cité bi la neexee la parce que odeur bi envahir toute la cité waxuma la SN Cité mais toute la zone waaw muy penku est ouest nord foo mënti dem ngelaw li fu mu jublu da ngay daal di gis ne odeur bu metti moo ñuy envoyé te odeur boobu dafa am njeexantal ci maanaam wér-gu-yaram doomu aadama ñi jàng médecine xam nañ ko c'est source d'allergie c'est source de maanaam mën na indi ay jafe-jafe ci wàllu wàllu nooy doomu aadama surtout ñi amee asthme ak allergie xale yi tamit bon am na benn médecin bu fi dëkk mu soon na intervenir ci groupe bi nee na ben mbir la odeur yoy ben mbir bu bon la parce que extrêmement manam euh, ganaar yi li ñuy génnee odeur bi dafa am ay ay azote genre xeetu dal yu ci nekk ci biir yo xamné ne mën na indil xalé yi jafé jafe ci seen wér-gu-yaram donc lolu moo tax ñu né il faut ñu woté dénoncer ko ñun xam nañ né borom ferme bi borom Sedima nit la ko xamné c'est un modèle il a investi investir na ci réew mi mu créé emploi c'est un modèle de réussite économique et sociale donc warna warna mëna moytu di lor ay doomu adam surtout ay ay dëkkandoo no xam xamné ay jullit lañ wala ay croyants comme moom té defe naa lii pour mu régler ko euh, du dara ci mom donc ñu ngi koy lancer appel en tant que sénégalais en tant tant que notre euh, compatriote dëkkandoo mu jéem jéem ñu dimbali lu mën ci ferme bi parce que ferme baa ñuy lor euh, odeur yi ak weñ yi ak manam euh, affaire ndox mi aussi day indi ay jaan ay ak yenen xaat xeetu manam euh, reptile yo xamné ñu ngi fi nek ci cité bi té loolu lén lu ko ferme bi donc appel bobu lañ amone amoon di di di ko lancer di ko lancer autorité yi à commencer par le gouverneur sous-préfet manam préfet sous-préfet le maire avec toutes les autorités compétentes le ministre de l'environnement le ministre de l'urbanisme vraiment nous sommes voir naka nous ñuy euh, indee saafara ci lor yi nga nous la ferme bi mu